AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana al uda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wasalhu dakiran wa shakiran abad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 ñoo ngi leen joxe xikma bi fii ci daaray Hikmatul mi ci Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 ci ñu bëgg bind seeni doom ngir ñu jàng si ci daara ji ndax njàng mi tàmbali na wala ñu bëgg am ay leeral incha allah tey ñu fas leen yeneen andil xikma bu amati solo tey moom cëgg lañuy indi andi cëgg nag mooy lu def buy yu bare bare incha allah tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul ak njabootam gu tedd googee eh, te lépp jëm ci eh, kilifa masuliya bi mu war a am maanaam responsabilité bi nga xam ne ni war na koo am eh, Serigne Touba Xaadimu Rasul dafa masawoo ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal ak Serigne Dame ak Serigne Baara Ñang Jaabi di waxtaan ak ñoom waxtaan wu gudd waaye bokk na ca lam tëjee waxtaan wa ne leen samay wax togg ku xiif la ku xiif nag bu la toggale da ngay gaaw lekk ko mbaa mu lekk ko lu ma leen mas a digal def naa ko ba tàyyi te bu ma leen diggalee ba noppi jóg defi ko mosuma leen a tere it lu ma lu ma mas a def te duma ko mas a def mukk kon kilifa noonu lay mel lépp lu muy digle ci ak njub da cay jiitu di ca woote waaye lépp lu muy tere itam bu mu ko bu jegee moo tax ak Cheikh Saalix radiyallahu anhu daf daan wax ne yoonu yoonu yu kat yoonu ñëw leen ñu dem la waaye du yoonu dem leen ma ñëw kon kenn ku nekk da ngay jiitu ci mbir yi te jiitoo itam yërmande moo tax Sëriñ Musaa Ka waxoon wax yu am solo dal ne kilifa day mel ni ki suuf di yar ku baax di di yor ku soof njaboot gu regg moom mu xiif lu musuwul ak lu musu kilifa day yaatu lewet sandam lu noonu ya koy goset lu def ku wax mu ne bërit tontu ko dal daldi laxasu sëriñ Malick Bassine si waxoon na ne ñeenti jikko yi de waaye day yàq kilifa ñu ne ko ban ak ban ak ban ak ban mu ne loo xam wax ko luñ la wax nga wax ko loo mer xul ko loo am jagoo ko moom Serigne Malick Bassine daan wax ne ñaari jikko la day yàq kilifa ñu ne ko ban ak ban mu ne ñàkk ñàkk jub ak ñàkk njëriñ daana wax it moom Serigne Malick Bassine ne kilifa balaa digle day def balaa tere itam day bàyyi ndax nit ñi kat boo leen dee digal loo def wala nga leen di tere loo bàyyi eh, li ngay wax day jóge ci saw làmmiñ di jaar ci seeni nopp waaye duñ jëf duñ bàyyi boo leen dee digal li ngay def nag di leen tere li ngay bàyyi li ngi leen di diggal day tàbbi ci seeni xol ñu jëf ak bàyyi kon nag kilifa noonu yi la war a mel moo tax sëñ bay jaxate daan wax ne na ngay def li lay war ci nit ñëpp yow te far mboolem lu war nit ci yow ku yàllay defarloo njabootam gi kat da ngay muñ ba faf mel ni suuf si nu aw kon kilifa mënta ñàkk mu muñ ndax kilifa ni ma ko waxee fan yee rek masuliya la maanaam responsabilité la waaye du privilège kon kenn ku nekk war naa farlu góorlu ba ñamu yilif mu amal leen njariñ te ñi nga yilif it tane goo leen tane ak yaakaar gu ñu yaakaar ne yaa leen jiitu ak mënal nga leen moo tax ñu def la kilifa kon nag boo leen taniitut day mel jërutoon ñu lay def kilifa kon moo tax man ma tënk wax yooyu ne kilifa day jiitu ay surgaam ci njub ba noppi jiitale surgaam ci njariñ ak may man noonu laa ko déggee kilifa day jiitu ay surgaam ci njub ba noppi jiitale surgaam ci ci njariñ ak may kilifa noonu la war a mel kon yàlla na suñu borom boole ak kilifa yu mat kilifa te ñu nit ñu mat leen ay surga ndax nit ki itam boo amee kilifa gu mat kilifa itam dangay ngay jéem a mat surga mhm. te kilifa itam fu njabootam jubee rek war na koo neex moo tax sañ bay jaxate la mu waxoon rek ndax xam gaañe man maa ma ko murit su nangoo ma teglëf su gàntoo ma ba su delsee te tuubit moyom nga mayoon ma jéggal ko dal koy joxoñ àll ba bu dikkul te faf jàpp ak njaamuram ma ñaanal ko aw yi wurul jeete ba bu dikkul lu tax ñuy bijoo koy xuloo bijoo koy xuloo lii du may kenn mba sëriñ buy xuloo ko murit du sëriñ sëriñ day jubal ab murit mbaa mu baax murit buy xuloo ko sëriñ nag jubul ndegam nag mënoo koo jubal faf ko baax kon ñoo ngi soññaat sunu bopp di soññaat mbokki taalibe yëpp ci liggéeyi daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di ko liggéeyale lislaam di ko liggéeyale jullit ñi di ko liggéeyale Cheikh al Xadim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 in uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh